candidat yi cinq lañ am na Macky Sall Ousmane Sonko Oustaz Sall Idrissa Seck Madické Niang. candidat yi de yaakaar naa juróomi candidat est-ce que mën nga lim seen i seen i waaw seen i de war naa koo mën a lim de xanaa Idrissa Seck de mooy numéro un moom euh, Sonko topp ci Madické topp ci ak euh, Ngor si ki ne waaw beneen waa ji nag moom jarul tudd moom Makia Sall moom daanaka rek jarul tudd. candidat cinq lañ ma Macky Sall Madické ak Ousmane Sonko Idrissa Seck. cinq. seen tur. seen tur. Macky Sall. Mhm. Madické ñaar. Mhm. ak nakaati sax Sonko. Mhm. Idi. ak ma ci xam te di ko dégg jàpp ko ci mooy juróomi candidat la maa ngi ciy dégg ñu ciy wax ku mel ni usmaan Sonko ak euh, Macky Sall Idrissa Seck Madické Niang Issa Sall. ah candidat yi nag pour euh, xam seeni tur ak kenn ku nekk moo wax la turam am na ñu ma jàpp seen tur. xam naa daal Idrissa moom mi ngi ci biir Macky Sall moo fi nekkoon ñoom ñuy waaj pour bëreeg moom pour aw ko ci réew mi Issa yit dégg naa ko ci Sonko yit dégg naa ko ci xanaa daal bu mu ci fàtte xanaa benn lay doon xanaa ndax comme juróom lañ. seen i wax daal ñun daal lu ñuy ñaan moom nañ ñaan yàlla ki gën ci réew mi rek. ku gën ci réew mi daal la ñu bëgg moom waaw te Idrissa Seck nag am nañu yaakaar ni maanaam moom mooy doon président bi si kàttanu yàlla moom ndax réew mi Sénégal réew bu yërmande la réew bu jéggale la te ñi fi nekk dañuy jaay doole yaa ngi dégg amuñu bu yërmande seen taalibe dafa des te Sénégal gii nag dëkkub cosaan la ay mago ko jiite ay mago ko yor ñoom ñooñu ñëpp juróomi candidat yi suñu demoon tamit bàyyi ñu du tee suñu Sénégal day continuer di dem élection yi daal li ñu mooy jàmm Touba gi jàmm lañ ci bëgg moom la sëñ bi mbir yi nag maanaam moom leer na nañ idi moom bu soobee yàlla moom moom la ñuy jox réew mi si kàttanu yàlla. Ah. ah ma de sama gis-gis xanaa ñu ñu fal kiñ kiñ àndal rek muy Idrissa Seck yaakaar naa daal xam naa ne bu dul moom moom ñu delloo ki ko yoroon rek Macky kii Macky Sall waaw noonu daal laa ko gisee. waaw waxi politique la rek waaw comme ku nekk rek réew mi daal lu ñu soxla mooy ku ñu jàppale surtout ñun élèves franchement ndax mooy loolu comme. problème professeur yi à chaque fois ku fi toog tamit la même chose lay doon grève yi lu dakk waaw mu dox ci kii intérêt euh, population bi rek waaw. man nag instant bii nii nag programme laa doon laay laay xool man candidat yëpp programme laa ciy xool waaye ñun danoon nekk senes boo xam ne yàlla def noo nattoo benn affaire mooy dañuy ay taalibe doon ay donga te gis ni politique gu Sénégal. ñu ci ëpp maanaam bu ñuy wax ci wàllum senes bi nga xam ñoo war a liggéey ay diplôme la ñuy laaj ak ñu jàng euh, ñi nga xamante si ni ñooy doomi soxna yi ak doomi daara yi ak ñi nga xam dañuy jugee ci daara yi li ñuy xam mooy buñ génnee rek dem wuti lu nu jàpp maanaam marchand ambulant ji wala dara te ñi nga xamante si ni ñoo jiite suñ réew yi ñun ma maanaam ci gàttal bàyyi wun nu xel ñun marchand ambulant yi maanaam seen politique si ñun day des trop parce que ku mel ni Macky Sall bi mu toogee ñun marchand ambulant ci nguuram gii nii sontee sonn lool ndax malgré que yi am yëpp dañuy lal fenn ñu ni lallil te duñu jox fenn aussi tamit am na ci benn contexte boo xam mën nga cee ànd ak ñoom waaye am na contexte boo xamante si ni ñun ñii xam nga mënoo ni ñëpp danañ am place mënoo ni ñëpp danañ nekk ci bureau yi mënoo ni ñëpp danañ am ci diplôme mënoo ni ñëpp danañ am métier